mu mel ni aayaat yooyu mu doon jàng yàlla dafa ciy nettali ne fi yàlla yónnee suñu maam aadama wàccee ko ci kaw suuf ba ba muy yónnee yonantu yàlla noox muy premier yonantu bu yàlla njëkk a yoonal diggante bi fukki seekal la mu ne booba nit ñëpp ci benn diine lañ nekkoon amuñu woon benn wuutee muy diine suñu maam aadama waaye gannaaw si gi nag bi mu yónnee yonent yàlla noox jox ko euh, euh, jox ko téere ci waxi yeneen yonent ya ñëw gannaawam waaye booba téere yañ koy jox mooy dañ koy wax yu rek téere aadama ya paase woon Ibrahima ñëw ak fukki téeréem ya yonentu yàlla a ñëw ak zabuuram ba yonentu yàlla Muusa ñëw ak tawreetam ba yonentu yàlla a ñëw ak injiilam ba foofa daal ci la wuutee nag commencé am rawatina ci diggante yahud yi ak nasaraan yi ñii ñu wàccee ci ñoom tawreet ñii ñu wàccee ci ñoom linjiil kenn ku ci nekk añaane sa morom bay wax ne yow nekkoo ci dara wa qalat il yahudu laysat il nasara ala shay wa qalat il nasara laysat il yahudu ala shay ñoom ñaar ñëpp biñ bokkee añaanante ñu bokk añaane sayduna muhammad ak xeetam wi wutee bi nag bëree tasaaroo kon daal ci aadama ba ci yonantu yàlla noox mi nekk premier yonantu bu ñu yoonal ñëpp dañoo bennoo woon waaye nag beenoo gi mi ngi commencé diggante yonantu yàlla noox ba ci yàlla di yónni sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu ñëw war a bennale ñu bennoo ñi ci benn téeréem bii nga xam ne mo ëmb téré yëpp ya ndax téré yi mësa a bàyyi ko ci asamaan ñëw ya ci suuf yëpp boo ko calculé téeméer la ak ñeen sëriñ touba xaadimu rasul tënkee ko xaddun xaaf téeméer la deel kaat la danañ koy tënkee timit samadu saat soixante la miim quarante la deel kaat la yàlla jël ci fukk jox ko suñ maam aadama jël ca fanweer jox ko siisa jël ca juróom fukk jox ko Idrissa jël ca fukk téeméer bi mat mu jox ko Seyduna Ibrahim moo tax mu ne suhufu Ibrahim su ko defee nag mu des ñeent ña bii di Zabuur Daawuda ko moom bii di Tawreet yonentu yàlla Muusaa ko moom bii di Linjiil yonentu yàlla Iisaa ko moom bii di Furqaan di Qur'aan Sayyiduna Muhammad moo ko moom sallallahu alayhi wa sallam waaye téeméeri téere yooyu yëpp ma tudd dugg nañ ci ñeenti téere yi ñeenti téere yëpp ñett ya dugg nañ ci benn bi benn bi mooy Alqur'aan mi ñu tiim fas yéenee firi ko kon benn bi doy na walis lépp te dara mënta doy walis ko loolu nag la yàllay nettali ci kaana naasu ummatan wahidatan baatab ummatu nag dana ñëw ci alquran ay yoon firima wuutee dana ñëw tudd ummatu namm ci yoon moom lay firi fii inna haadihi ummatukum ummatan wahida foofu yoon lay firi waaye ummatu dana ñëw di tekki mbooloo muy gindee jëmee ci <laughs> diine yàlla ji moom nga jàng mu ne wa mi man xalaq naa ummatun yahduuna bil xaq waaye tamit dana tudd ummatu namu ci ab diir waxtu moo tax mu ne waddakara baada ummatin dana tudd ummatu namu ci kenn kuy juble jëmee ci diine yàlla ji mat roy téef lool muy sayduna ibrahim moom nga dégg mu ne inna ibrahima kaana ummatan xaanitan lillahi xanifan comme ni ngeen ko jàngee kon bul gisati ummatu rek nga ne milatu lay tekki bul gisati ummatu rek nga ne xudwatu lay tekki bul gisati ummatu rek nga ne jamaatu lay tekki waaye baat bi dafa sakkan danay tekki lii lépp ma wax la ko mu wuutee ci biir alquran ci place yu wuute yi waaye fii nag moom yoon la fiy tekki moom lay wax ci nii moo tax yàlla ne kaana nekkoon na annaasu nit ñi ummatan di xeet waahidatan bay benn fa baasa yónni na laahu yàlla nabiyina yonantu yi ñoom ñëpp boo leen calculer mën nañ cent vingt quatre mille ci ay prophètes mu tànn ca trois cent treize yónni leen ñi mursaluna ya mu tànn ca vingt cinq muy ñaar fukk ak juróom tudd seen tur ci alquran moo tax mu ne fa baxasa yónni na allahu yàlla yi nabiyina yonantu ya mu basirina mbir mu ñuy woy bégal képp ku leen gëm ci aljana wa munzirina ñuy xuppe képp ku leen weddi ci safara wa ansala wàccee na maahum ànd ak yonantu yooya alkitaaba téere ya kitaab bi maanaa kutub waaye yàlla mufratal na ko defut ko jamoo ndax téere li ñuy bëri bëri benn lañ ñoo bokk lu ñuy jàngale ci wéetal yàlla bil xaq ci dëgg li ma ngir na atte moom yàlla bay na naat si diggante nit ñi fii maxtalafoo ci li ñuy wuutee fii ca dëgg ka tamuy jann wa maxtalafa wuute hut fii ci dëgg googu illa la si loolu ña nga xam ne uutuuhu jox nañ leen téere ya waaye ñam ca namm mooy yahuud ya ak nasaraan ya foofa la wuutee gën a fésee min baxdi ma jaat hum gannaaw bam leen dikkalee albaynaat la yu leer nañ yi ci melow yonantu bi waaye nag wuutee am ci seen diggante bax yan ngir ak añaan baynahum seen diggante waaye bu uutee amee fa hada gindi na laahu yàlla dina ña nga xam ne amanoo gëm nañ alquran li maxtalafoo ci li ñu wuutee fii ci diina ji min alxaq ci dëgg bi isnihi ci ndigalam ndax wallaahu yàlla yahdi mooy ginde man saaw ki ko soob ila siraatin jëmee ko ci yoon mustaqim wu jub kocc te mooy yoonu lislaam kon bi yàlla bindee aadama wàccee ko ak soxnaam saydatuna xawa ba ci yonentu yàlla noox di ñëw benn benn diine fi nekkoon wenn yoon téere yi fi wàcc ci diggante bi bëri na ya ca aadama am fukk doomam sa wax naa la ko am ca fanweer sa sëtam la am na ca juróom fukk eh, waaye booba problème amut ñëpp a bennoo xoon bennoo amutoon bi yonent yàlla noox ñëwee yàlla yónni ko waaye moom amul téere spécial buñ koy jox buñ koy joxati rek téere yi passé woon lañ koy wax yu muy woote jëmee ci diine yàlla ji ña ko gëm-gëm ko ku yàgg la ci nubuwatoom géeg risaalatu gi junney at waaye daanaka daal junney at ya boo ko calculé juróom ñeent téeméeri at ya ak juróom fukk yëpp ci nitam ñu bon ña juróom fukki nit ñoo ko gëm gannaaw si gi nag ña koy gëm door koo gëm ah, ah, juróom ñett fukki nit kon ñoo ko gëm mooy ña duggoon ca gaal ga gannaaw si gina ba mu defee juróom fukki at yu neex ca nitam ña gannaaw bi nga xamee ne yàlla labal na gaayam ya ca géej ga ci la door a génn àdduna moo tax nubbu atoom géeg risalatu gi yëpp daal junneexat rek la waaye junneexat ya nag juróom-ñeenti téeméer yaak juróom fukk yëpp dafa naqari mi ngi ko dund ci nitam ñu bon ña lam cay yàgg lépp juróom ñett fukki ni dong ñoo ko gëm ci diir bu yàgg booba gannaaw sigi nag yonentu yooyu ñëw sayduna ibrahim cala yàlla jox ko fukki téere gannaaw sigi yonentu yàlla moussa ñëw yàlla jox ko benn téere bu ñu tuddee tawreet gannaaw si gi sayduna isa moo mujj ci yonantu yi gannaawam daal sayduna muhammad rek moo ñëwaat gannaawam waaye diggante isa ak yonantu bi yonantu doxut fa waaye nag wuutee gi mi ngi gën a fësee ci diggante yonantu yàlla Moussa njabootam ga ak diggante yonentu yàlla Isaa ak njabootam nga ñu añaanante ñoom ci seen biir kenn ku ne wax sa morom ne néewu ci dara ñoom ñaar ñëpp ñu bokk wax yonentu yàlla Muhammad ak xeetam yi ne néewu leen ci dara loolu la yàlla nettali ci aaya jooju aaya ji tegu ci nag diine mosta neex dëgg mosta neex ba yàlla yónnee sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama jox ko lislaam di ko jaayee ñaari njëg njëg bu njëkk gi mooy bakkan joxe sa bakkan bu ñaareel gi mooy joxe sa alal lislaam kenn mënu koo jënd te joxe woo sa bakkan baa nga joxe sa alal ba mu jeex tàkk moo tax mu ne inna allaha stara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna bi mu joxee ñaar yi nag ci njëlbeenu lislaam saxaba yi sonn nañ ñëw leen ci Ibrahima Moussa ñene gëm nañ yàlla yàlla ne natt woon naa ko dañ leen doon rey ñenn ñi ñu leen di dóor ñenn ñi ñu leen di gaañ ku mel ni Suhaybu ku mel ni Aflax ku mel ni Yaasir ku mel ni Sumayatu luy sa xalaat ci xeetu mbugal teg nañ leen ko ci waa Màkka yi musrikuuna ya fa nekkoon daanañ jël sax mbubbi weñ ni Màkka tàng yi ñi leen koy solal ku mel ni bilaal ñi koy jël di ko tiimaleeg safara jéem koo lakk waaye ànd ak la muy métti métti mu ne ahadu mbir ma méttee métti ba ñu fekk tamit loraange gi yonent bi toog di julli ñu jël mbàq ak gëléem gu gu nëpp maanaam sotti ko mbir ma métti ba mu ne xajatu leen ci dëkk bi jox naa leen ndigal ngeen dem Éthiopie dem gàddaayi fa gannaaw bi nga xam ne yonantoog yonantu gi am na juróomi at booba yónni nañ ko ak juróomi at mu tolloog ñeent fukki at ak juróom ci ci ci dundam tolloog juróomi at ci yonantoom ñu bëri dem yemuñ ca ñu yónni ñoom musrikuuna yi Omar ibnu Aas yi mu dem war a def ab discours ca buuru najaasiw ba booba ku fa nekk buur ak siw lañ lay tuddee waaye turam dëgg moo doon af xamatu war a dem nag wax ak ñoom ne ko ñii dañoo yàq si réew ma ba tax xajatuñ fa wax lañ wax ak moom bëgg leen a yàqal waaye mu jul sotti rek lépp ñu ngi saboote diine rek di ko sonal mu jigéen nag ci la xabaab ibnu art ñëw fekk yonentu bi toog mu ne maa ngi ko fekk ma nga sóondiku ma ne ko sonn nañ dimbale ñu nga ñaanal ñu coono bi métti na mu ne ma gis xar-xaramam ba soppeeku mu jug toog mu ne ko xabaab dajagu leen ñi leen jiitu woon liñ daj ñi leen jiitu woon nit dana taxaw ne gëm naa yàlla rek ñi gas pax dugal ko ci jël sii ñi siyee bant yi teg ko ci boppam bi xaaj ko ñaari xaaj te du tax mu weddi yàlla te yéen foofa yëpp yeggagu leen fi kon dem leen ngeen muñ coono bay ñëw bañ dem gàddaay bañ demee gàddaay climat wu Madina ak bu Makka duñ benn saxaaba yu bëri feebar Aboubacar feebar fa Bilal feebar fa feebar bu métti bay def wayam yu siiw ya ne kullu mri'in مصبح في أهله والموت ادنا من شراك نعله من كان كنا كيون بو قيدال سديم ولا غنا جيغا سا وراو دال ويغا سو نيغي ساليغا تيونا با خاصوت الاحساب نيو ني دافاتي كوريل ييب كوريلو ني داني دم راي يونتو بي اك اك مبولو خام تا بوبا نيوم امون دولا جون لين ديكو با ني موجي خاس غاس مانام باخ wërale ko fa ñu nekk ndax arab yi fas la ñuy xeexee te fas mënta jéggi kàmb te ki leen jox xalaat boobu mooy salmaanul farisi yi coono bu métti boobu nag la yàlla nettali nii ne leen nangeen ngeen ngeen mun te xam ne la daloon gaa yi leen jiitu woon faw mu dal leen ndax yéen a bëggoon la gaa yi bëggoon ku bëgg la gaaya bëggoon nag la daloon gaaya faw mu dal la lu baax mosta yomb waaye am naa lu baax maa ngi ko jëlee ci noflaay ku la ko wax ne ko waxoo dëgg lu baax coono rek alal du ko fekkee bakkan du ko fekkee sa der du ko fekkee moom lay wax ci nii moo tax mu ne am xasibtum ndax da ngeen a njortu yéen saxaba yonantu bi an tadxulu ngeen tàbbi jannata aljana wala maa yatikum te dikkalul leen lama bi maanaa lam dikkalul leen masalu la si ne melaw gaa yi nga xam ne xalaw jiitu woon nañ masalu la si ne melaw gaa yi nga xam ne xalaw wayoon nañ min qablikum la leen jiitu woon masathum jotoon na leen albasaawu tatag lor ci ñàkk wa darraawu ak tatag lor ci feebar wa zulziloo rëngi rëngi ref na leen wa zulsiloo tiitaleef nañ leen xatta yaqula ba wax ar rasulu yonantu ba wala di naag ña nga xam ne amanoo gëm nañ alquran maawoo ànd ak moom ña ngay wax naan mataye nasrullahi kañ la ndimbalal yàlla lii di ñëw sama borom ne allah waawee inna nasrallahi naka ndimbalal yàlla xaribun lu jege la muñ leen rek ci la yonantu bi wax xabaab ibnu art ne ko ngaa yàkkamte dem leen ngeen toog muñ maa ngi lay xamal ne sama woote bii dana daj dana daj kàpp àdduna bi bis dana jot nit bàyyeekoo fii ci Sanaa u Yaman dem ba xadaral mawt ak ni mu soree du gis dara lu koy tiital du gis dara lu koy traversé su boobaa xam nga li muy ragal xanaa ay till yuy jàpp ay gàttal waaye dootul nit ku koy yàqal waaye loola kon yàlla def na ko kon nag diine mos ta neex boo ci nekkee da nga daj lu ne da nga dégg lu ne aaya ji tegu ci kenn laaj muy Omar ibnul Jumuux ku bëri alal la nekkoon mag waaye waxoon naa la ko keroog laaj bu amee njariñ donte kenn ko laaj bu ko yàlla wax day mel ni ñëpp a ko laaj day wax ne yasaluna ko mais du ko yasalu laaj baa am njariñ waaye laaj nag bu amul njariñ ka ko kam ka ko ka ko laaj rek la amal njariñ su boobaa buy borom di nettali rek day wax ne day wax ne yasalu waaye du wax yasaluna ka kon nag waa ji bi bii di sahabi bu tedd bii ñëpp la amal njariñ lum laaj dafa laaj yonantu bi na ko waaw xeeti alal yi ñu yàlla may dafa bëri dama lay laaj buñ ci dimbalee nit ñi ana bañ xeetu alal lañ war a joxe ndax am na koo xam ne alalam ay gàtt la kii am ay gëlëm kii am ay nag kii am kii kii am xaalis kii yore dugub kii yore gerte kii yore kii yore ceeb waaw bu ñuy dimbale nit ñi dañoo war a joxe ceebam dañoo war a joxe gàttam dañoo war a joxe xaalis ban lañ ci war a joxe ci xeeti alal yi xam nga ne bu ko yonent bi tontu woon ci lim laaj rek mbir ma xat bu ne woon ko joxe leen xar yow kon boo bëggee dimbale sa mbokk te amoo xar foo jëm bu ne joxe leen xaalis nga bëgg a dimbale sa mbokk amoo xaalis foo jëm bu ne joxe leen gëlëm te amoon nga bëgg a dimbale sa mbokk amuloo gëlëm euh, foo jëm yàlla ne li nga laaj dëgg dëgg duma la ko tontu dama lay tontu li la amal njariñ loo loo man a sàkk ci ndimbal nga moom ko moomin gu leew di ko joxe kaay ma wax la ñu ngi koy jox rek waxuma la looy joxe looy joxe baax la waaye ñu ngi koy jox laa lay wax ah, kon moom dafa laaj lu ñuy joxe yalla ne ko duma la ko tontu xam nga li ma lay tontu ñoo ñoo ko war a jox mu ne ndimbal bi ci ëpp doole comme du sarax du asaka boo cay dimbale na ci sa ñaari waajur yu jiitu sa papa ak sa yaay ndax bu ñu amutoon doo am ba am looy joxe kon ndimbal yëpp yàlla nee na ndey ak baay ñoo a jiitu mais du asaka nag asaka kenn du ko jox sa papa asaka kenn du ko jox sa yaay ndax sa yaay ak sa papa bu ñu demee ba xëyoo lekk asaka yaa leen war a dundal asaka kenn du ko jox sa doom sa doom ji bu demee ba xëyoo lekk asaka kay yow mi baayam yaa ko war a yore asaka tamit yow jëkkër doo ko jox sa jabar sa jabar bu demee ba néew doole war a lekk asaka yaa ko war a yore yaa ko waroon a yore même boo amoon sax lu dul jeex yaa ko war a yore waaye jabar nag mën naa jox jëkkëram asaka waaye su boobaa fuqahaawu maliki yu ne nañ bu ko ko joxee asaka bu mu ko def dépense jabar ja ci sa lekkaat ndax sarax warta dellu ci ko ko lekkaat kiko joxe won bu lako joxe yow je keur gi demal nga xotti yére yu rafet commencé sañse wala nga dem tabax sa keur gi bu pare la bu la nexé nga dem jënd dibi nga lek ko fofu sa keur ga waye bu ki soxna si lek de boko ko rek sarax delu na ci kiko lek won kiko joxe won te yonentu bi neena saraxé saraxe ba pare lekkaat ko dafa melni ne wëccu ba pare lekkaat ko boo saraxee waroo koo lekkaat sirna Omar mosoon naam saraxé ben fas kam ko sarax man fas lol diko top to fas waro bu ko rafet lol mu bëgg koo jëndaat yonent bi ne ko bu ko jëndaat boo ko jëndaatee day mel da ngaa wëcc ba pare lekkaat ko kon loo xas joxe rek bàyyi ko ki ko joxe waaye war sa del si xat ci yow fii nag muy wax sarax su coobare la mooy kon buy ndimbal lu dul asaka bala laa mbedd mee tagg na fekk sa baay ak sa yaay tagg la de waaye bëri na fi ñoo xam ne boo leen doon tagg di leen sant di leen gërëm soo mooy taxut bu leen bu leen bu leen seen bu leen bu la papaam jege woon mbaa yaayam xaañ la de ndax li ngay wax dara dara mu ci fenn te loolu dafa bëri sàmba alaar dafa bari ci dëkk bi nekk ci télé bi di baatare ay dix mille di baatare xaalis bu dul jeex te fekk sa mbokk yaa ngi bëgg a dexe xiif du diine moo tax yàlla ne ku ci jiitu koy war a dimbale sa ndey ak sa pap ñu ne ko ñaareel ba mu ne say jege ñaale jege ñaale mooy joo bokk ci wàllu meen ak ci wàllu gaño képp koo bokk ci wàllu meen ci wàllu gaño nga yëkkati ndimbal jox ko ko muy sarax muy ndimbal yàlla nee na ñaar laa la koy defal dama lay jox yoolu sarax ba jox la yoolu jokk bokk ga boo ko joxee jàmbur ma defal la ko benn nga jox ko mbokk ma jox ko ma def ko muy ñaar mu ne ñetteel ba booy joxe gannaaw mbokk dimbaleel jiriin yi yaa ngi dëkk nit ci koñ bi bàyyam génn na àdduna xale yi amuñ ku leen fayal njàng mësoor a guñu mënuñoo taxawee seen bopp nga ne ah sama dëkkandoor bi de baayam dafa génn àdduna te xam naa ne weeru koor wi dana xaw a doy waar ci ñoom de nga jënd ay saakoy ceeb jënd suukar yónnee xaalis foofa ca kër jirim ya boo ko defee yàlla fay la mu ne ñeenteel ba booy dimbale dimbaleel miskiin miskiin nag moo gën a bëri ci suñu réew mi Malick nee na ko amul dépense ren ba déwén rek miskiin nga kon ñi fi miskiin bëri nañ moo tax bu waa ji yalwaan ci trottoir yi kii nekk miskin yalwaanut booy dimbale dimbaleel ka ka yalwaanut ndax koo xamee ne tey ñàkk na li ko war ci jàngam doomam yi li ko war ci ci ay ferema manta langaas genn wàll ak lam am te mënul jël ndoxu xarxaramam di ko tuural benn moromam gorom kum dem sax di ko wax soxlaam day wax ne dafa may weer dafa maa bëgg ñaawar rek booy dimbale dimbaleel kooka kooka mooy miskin ka ca tegu nag mooy ibnu sabil ku takku tukki tagga témbe ci réew mi bëri na léegi bëri na ñu nekk Amérique ñoo xam ne paase leen fa téye de bëri na ñu nekk Italie paase fa téye de bala ngaa di ko yónnee fii seetal ñi nga doon liggéey ak ndoor foofa ca réew ma ñu nekk ibnu sabil te amatuñ dara nga jéem leen a dimbale kon nag Omar ibnu Jumoox dafa laajoon su may dimbalee ban xeetu alal laa war a joxe ne ko du ma la ci tontu ñi ngi koy jox laa lay wax ñi ngi waaye bu ko waxoon li muy joxe rek joxe kon joxe day xat su boobaa kon loolu rek lañ mën a joxe waaye nag kon loo joxe rek ci xeetu alal xeetu ndimbal baax na am na koo xam ne yëre la mën a maye ah, am na koo xam ne mbaxana la mën a maye am na koo xam ne xaalis la mën a maye am na koo xam ne dugub la mën a maye kon nag loo mën a maye rek te yàlla tax baax na waaye boo koy jox nag jiital ci ñii kon kenn du yàlla moo tax mu ne alunaka danañu laaj la maasa yunfiquuna ana bañ xeetu alal lañ war a dundale bu leen ca tontu xul wax leen ne maa anfaqtum lépp lu ngeen mën a dundale min xayrin ci yiw min xayrin ci alal falil waalidayni na ngeen ci njëkkee seen ñaari waajur yi bu ca paree wal aqrabina na ngeen ca teg seen jege ñaale yi wal yataama ak jirim yi wal masaakiini ak miskin yi wabni sabili ak doomi yoon wa maa tafaaloo lépp lu ngeen def min xayrin ci yiw fa inna allaha naka yàlla a alimun xamaa kon la bi ca loolu de comme xam na ko nag dana ko fay kon yàlla laajut ko ca lam tontu waaye sax tontu xaale na ko ca loo mën a joxe rek yaa xam comme leew na rek jox ko ñii na ci sa sa waajur yi jiitu say jege ñaale jirim yi jirim nag mooy koo xam ne bàyyi ja dafa génn àdduna te mësoo ragul kooku mooy jirim su fekkee ci nit buy ci njanaaw mooy ku yaay ja génn àdduna te a gun naaw buy ci mala yeeg bàyyi ma yeeg mooy koo xamee ne nii yaay jaa génn àdduna ta teragul ci soow ah, kon loola mooy jirim su ko defee nag jirima ngoog waaye ci nit nag moo ma tax di wax nit nag daal mooy képp ku bàyyam génn àdduna te mësoo góor mësoo rëggu rek kooku jirim la su ci olof nag ku yaayam génn àdduna te dëgëragut toog la ñu tuddee baayo baayo ci wàllu yaay waaye jirim ci wàllu baay ñoom ñaar ñëpp dimbale leen yërëm leen tapp leen ñëwanti leen lu war la yonentu bi nee na kër yëpp kër gi ci gënal yàlla mooy kër goo xam ne jirim ma nga ca ñi koy teral waaye kër yëpp kër gi ci yàlla gën a bañ mooy kër goo xam ne jirim ma nga fa ñu koy toroxal moo tax kuy dimbale jirim yonent bi nee na bu yowmal qiyaama maa ngi yow ñooy bokk benn appartement ci aljana ana wa kaafilul yatimi fil jannati hakasa mu junj ñaari baaraamam ya ndax moom kat jirim la kon nag képp ku yore jirim rek yaa ngi mel ni yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi dimbale sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax koo ne ñaari weer la am ndeysaanam ca yaayam ju tedd ja juddoogu toon mu uh, ndeysaanam bàyyi ja génn àdduna mu juddu am juróom benni at ñeen ñi ne ñeenti at siira moom lépp werante la ñii ne ñeent ñii ne juróom benn yaay ja génn àdduna ñu jox ko bàyyi tëx ja abu taalib moo yo mu jox ko kon maam ja abdul muttalib mu am ak moom yonentu bi am juróom ñetti at Abdul Muttalib génn àdduna ñu jox ko bàyyi tëx ja Abu Talib yonent bi dem ba am juróom fukki at yu manqué ay weer ci même at mi ci même weer wi ci même semaine bi yàlla faat bàyyi tëxam bi faat aawam bi di sayyidatuna Xadijatu ñetti fan lañ rawante loolu la maam Khalifa wax yàlla moom bu lay defaral la fa nekkoon di niru la lay defara yëpp dafay jëlee bañ xam ne ñoom duwuñ ca dara yaay moo yore lépp kon xam ngeen ni kii dundam métti na kon wax jooja jeex na mang ngi cay teg wàllu xeex ci weer wu ñu xormaal dafa dal lenn ci ay saxabaam mooy benn ñàngal dafa am lu ñu tuddee ci ci xam-xamu siira saraya saraya mooy jamu sariyatin fu ñu ko waxee mooy guerre boo xam ne yonent bi dafa yeble waaye début geer yi mi yeble demut boo demee ci téere bu ñu tuddee zaqiratul ataaya fil wufuudi wa saraaya góor ak yàlla gu tedd ga def ko maam Khalifa Niass dafa ne ñeen fukk la ak juróom ñaar ñi koy tënkee zëmmun ñeen fukki xare ak juróom ñaar la yonantu bi heble nga xam ne moom demut téere bu ama am solo la suñu waajur wi muul na ko nga xam ne mbooleem xare yonent bi demut ak xare bu ca nekk ba mu demut ku mu hebal ñooña ba ñu dem ñaata lañ ci wàññi weer la ñaataa ca dee luñ fa jëlee lépp téere bi andi na ko mu tuddee ko saxiratul ataaya fil wufuudi wa ya boo demee mu ne ñu ngi koy tënkee zamun moo tax mu ne amma ya في اختلاف السير فيها من المقل والمكفر وقدرها زم بقول الصائب ذكر ذلك صاحب المواهب nii la ko tuddee saraaya yooyu ba ca njëkk mooy bi mu hebaloon Hamsatu ibnu Abdul Muttalib mu doon dabi njëggam Omar ibnul Hisham ma looloo ngi xew ba yonentu bi amee fukki weer ak juróom-ñaar ca madinatul munawara tolleeg weeru koor bu ñaareel ba mooy Ubaydu maanaam Ubaydu bnu Xaaris li mu yebaloon moom tamit looloo nga xew sawaal ba mu amee fukki weer ak juróom-ñett boobu sax dum nu abi waqaas ma nga ca mooy ki njëkk sànni fett ci lislaam waaye reyut kenn bii may bëgg a tudd nag mooy ñetteelu ñàngal ya mooy ñetteelu saraayaa ya Abdullah ibnu Jahshin la yontu bi yónni woon mu ànd ak juróom-ñetti nit mu jox ko benn leetar moom bindut mais dafa koy bindulu Ali ibn Abi Talib ca bindkat ya la ci secrétaire ya la bokkoon mu bind leetar bi nag leem ko ne ko bu ko lemmi doxal doxam ñaari fan boo doxee doxam ñaari fan ba pare nga dooral lemmi leetar ba fi ma la yónni mooy fu ñu tuddee bat nu nax la bat nu nax la ak màkka doxab benn fan la soo doxee bëccëg dox guddi rek fekk màkka kon soriwut bat nu nax la fa ku ko jinne yi fekkoon mu jàng alquran ñu jébbalu ci inna sami'na alqurana ajaba yahdi ila rusdi inna sami'na alqurana ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi foofa la ko yónnee ko boo fa demee demal nga toog fa mën naa am da nga ma fa andil xibaar juróom-ñett ñi nga ànd ak bul forfé kenn bu ngeen doxee diiram ñaari fan nga door a lemmi leetar ba liir ko kum doy mu ànd ak yow kum doyut na dëpp bul forcé kenn mu dem ba dox ñaari fan lemmi leetar ba yonentu bi ne maa ngi tudd yàlla bu ma ca bàyyee koo yow mi di Abdullah ibnu Jahsin doomi bàjjanam la maa la wax ne àndal nga dox jëm bat nu nax la tax da ànd ak ndimbalal yàlla ak barkeel yaag ñi nga ànd ak ku la doy na ànd ak yow ku la doyut ku koo xam ne doyut ko mu dëpp ñoom ñëpp ñu ne ko doy nañu dañuy ànd ak yow ñu dem foofa nag tabaarakallaahu war a gaar lu ji njëggam Omar ibnu Hadrami yu moo mu fekk njëggam ay der la woon ak ay ay diw ay resin booba nag moom ñeenti nit la ñoom ña yore woon njëgg ba waaye nag ñii yonent bi yónni woon juróom-ñetti nit lañ te loolu mi ngi xew ci mujj ak rajab ñenn ña mi ngi xew ci da njëlbeenu rajab léegi nag ñoom ñi foog ne weer wi di jumaadal axira deexagul ndeke dee na bañ dugg ci rajab ah, ah ñi gaar lu njëgg ma bañ leen di séen sax dañoo gars yi xam ne dañoo xaw a ragal ñi watu ukaasatu lañ wat mu watu ñu ne ak ñi ngi koy comme na nañ ñu ngi ci umra amuñ benn jafe-jafe ñu dalal leen ñu toog waxtaan def nangam rek ci la nag euh, maanaam Abdullah ibnu Abi Abdullah ibnu Jahsin sànni fett mu jam Omar ibnu Hadrami yu mu dee ñeen ñi ne nag waaqit moo ko jam perte ma waaye mooy première perte guñ ma sa jam ci lislaam rey nit kooku mooy la njëkk a rey ci ci lislaam te loolu mi ngi xew ñu ne ci weeru rajab léegi nag ñu ñëw bi ñu ñëpp see jàppaale ñaari prisonnier ci lañ jàpp kaysaan ci lañ jàpp maanaam Omar ñu indi leen ñoom indi leen yonent bi arab yi yëpp commencé yàq deru yonent bi ne rajab ku ciy xeex ci jamonoy jaahiliya ba léegi kenn mosu cee ah, xeex yonent bi xeex ci baray nit ci ñun yonent bi nag mer ca lool ndax li ñi def digelul leen ko woon da leen waxon dem leen ngeen andil ma xibaar rek waye dem ci wéru rajab ci xex ko su leen ko digal ah ba ñëwee seen alal ya ñi tek ko yonentu bi ne amaguma ci digal duma ko mëna sédalé lañ fa mangé lepp ci alal ja mu tek ko benn place ñaari prix suñu mu téye leen di xaar yalla addu ja gannaaw si gi ci la ja wacci waalamu annama ghanimtum min shay fa anna lillahi khumsuhu yonent bi door koo xaaj nag jël ñeent ya séddale leen ko jël benn ba séddale ko yàlla mu jëm ci wàllu fere yeeg la lépp lu aju ca wàllu l'islam kooku mooy première màng mi njëkk a xew ci l'islam mooy première xumus bi njëkk a xew ci l'islam mooy première ki ñu njëkk a ray tamit ci l'islam ki ko njëkk a ray tamit tabarakallahu di amir bi yonent bi jiitaloon di Abdoulaye Abdoulaye ibnu Jahsin di doomi bàjjanam ñeen na ngeen ne wàqit moo sànni fett ga waaye kilifa ga rek moo tax ñu askane ko liggéey bi kon loolu mënul nag xew ci weeru weer bi gaa ya a avant yàlla di ca wax dara ñu ngi lool sahaba yëpp parce mere leen ne leen yàq ngeen deru seen kilifa weer wi kenn du ca xeex te moom digalu leen ko lu tax ngeen def ko ah yàlla wàcce aaye nag ci lañ door a féex nag aaye ji nag wàcc ne la gaa yee def moo gën a garaaw li ñuy def ñi ngi nii génnee yonent bi màkka ñi ngi nii génnee julit ñi màkka ñi ngi nii weddi yàlla ñu ngi nii képp ku ne gëm naa yàlla ñu mbugal la waaye waaye loolu moo gën a garaaw fuuf xeex gi ñu xeex ci weeru rajab te booba ñoom dañ ne buñ leen bàyyee rek ba jant bi so dañuy dugg ci ci xaram bi te buñ fa xasee dugg duñ mën a xeex ak ñoom ñu ñu duñ ñu mujj xeex ak ñoom ci weer wa donte booba xegg guñ ci xaram ba léegi nag yàlla ne li ngeen def dara ne fi ulama wu usul ne na ñaari loro loru buñ dajee da ngay jël ba gën a oyof te nag lii ñaari loru loru bii moo gën a oyof moom lañ jël motax nak ci la gaay a féexaat kontaan sawar amatuñ benn problème yonentu bi séddale mànga ma jox leen seen cër ñoom tamit ñu féex mais njëkk loola xatoon nañ lool ci biir saxaba yi moom lay wax si nii moo tax mu ne yasalunaka danañu laaj la ani shahri ci weer wi xaraami bade buñ xormaal luñ la cay laaj mu badal ca xitaalin xeex laa wax fii ca weer wa xeex ci weer wuñ xormaal waaye bu ñu la ko laajee xul waxal ne xitaalun xeex fii ci weer wu ñu xormaal kabiirun bàkkaar bu mag la waaye nag wa saddun dëdduloo jullit ñi an sabillahi walis diine yàlla ji muy benn wa kufrun ak weddi bihi ci yàlla muy ñaar wal masjidi ak dëdduloo jàkka ji mooy dëdduloo julit ji jàkka yàlla ji alxaraam bari buñ xormaal muy ñett wa maanaam mu ngoog maanaam maa ngi ñëw léegi nag maanaam wa ixraaju ahlihi ak génnee ña ñam ña minu ca jàkka ja akbaru moo gën a màgg indalaay fa yàlla wal fitnatu kéeféer gii ñu nekk akbaru moo gën a màgg fuuf minal xatli ci ray gi ngeen leen ray ci weer wu yàlla xormaal te maa ngi leen di xamal ne wala yazaluuna duñ dañ ñoom xéeféer ñi mukk yuqaatiluunakum di xeex ak yéen xataa yarudduukum ba ñu wëlbati leen an ko wali seen diina ji in istataau su fekkee man nañ ko waaye woo man yetuli képp koo xam ne murtad na min kum ci yéen an diinihi walis diineem ji fa yemun mu dee ca murtad ga wu fekk moom kaafirun aji wedd yàlla la fa ulaayka yooye gaa yi habitat si peeku na amaaluhum seen jëf ya fi dunya ci àdduna wal axirat ak alaaxira ulaayka yooye gaa yi asxaabu naar ñooy mbooloom safara hum ñoom xaaliduna way béel lañ fiihaa safara kon gis nga ko lañ doon laaj tontu na ko avant mu koy tontu nag dafa leen a wax ne xeex de faratal naa ko ci yéen ndax tooñeel gi métti na fukki xat ak juróom a ngi nit ñi leen di tooñ fayuhu leen moo tax ku fi nekk naan lislaam diine touriste la xaw ma yu kenn xamut loolu waxi wax ju bon la rek la lislaam dugul diine juy agressé kenn dugul diine lañ koy dëkk dëkkaleeg yu kenn xamut waaye lislaam diine ku ñu tooñ nga fayu la jeeram yëpp boo ko fekk rek cheikh al islam haji ibrahim neena delo toñange la ak manam dak ak ak ak ak tooñeel waaye jub mom dem di toñ amul mom kay dañuy dal ci kawam rek mu protéger bop wala ñu toñ ko mu dem fayu ji mais lulul lolu amul ci motax tax li lay xamal ne yag na ñoo tooñ fi l'islam commencé yàlla yónni yonent bi ci ñeen fukki xatam ñakoy gem gem ko ñetti at ñi dal seeni kaw ne leen li ngeen gëm du ngeen ko fi fësalee kenn ñemewut fee julli ci kaaba ga kenn ñemewut a julli ci place publique yi moom daal ñoom ñëpp dañuy nëbbu maanaam ah, maanaam ah, ah, jabalu abi arqam foofu lañ daan nëbbu di fa julli diiram ñetti at bi Sayyiduna Omar sax tuubee matal eh, saxaba yi ñeent fukk ci lañ sax door a commencé génn dem ca kaaba ga nga ñi nekk ci coono booba ñu ne gëm nañ yàlla ku mel ni Bilal liñ ko mbugal ku mel ni Suhayb ku mel ni Aflax rawatina Yaasir rawatina bi maanaa yaayam maanaam Sumayyatu moom dafa ne gëm naa yàlla rek ñi koy mbugal abu jëhlin romb ko doyut ko jigéen la mu jël xeej dëbb ko ko ci kanam mu dee mooy ki njëkk a rey ci lislaam jigéen jare maanaam bakkanab jigéen mooy njëkk a tuuru ci lislaam moo ki njëkk a dee te xoolal ni mu deexee ni mu méttee jël xeej dëbb ko ko loolu tooñaange mën na koo paase ànd ak lii lépp yàlla ne kufu aydikum wa aqimu salaata rek xeexloowuma leen de dem leen ngeen julli ji rek ta fekk seen loxo yi ñu continuer tooñaange yi ba saxaba yu bëri gàddaay dem Éthiopie taxul ñi ñi ñi bàyyi tooñaange ya ñu continuer tooñaange ya ba mujj xajatul ca dëkk biñ juddoo seen maam yi juddoo fa ñi koy génnee leen dëkk ba di madina maanaam makatal mu karama bañ fa amee fukki at ak ñett alal yañ amoon yépp ñi tëdd ca seen tool ya seen magasin ya seen kër yëpp ñu tëdd ca yéeféer yi tëdd ca ñu continue dem fële ca madinatul munawara di bokkaate ay néeg ñi ñii di fanaan ca peron wu jàkka ja ñi ñi jël ami ay njaatige yonentu bi jël ñeen fukk ak juróom ci muhajiruna yi séexale leen ak ñeen fukk ak juróom ci wàllan saa kenn ku ne mu ne di sa mbokk ñooña baax baax bu day ni seen mbaax yeggoon na ci ku ci am ñaari kër jël benn ba jox ko ki la yonent bi séexale ku ci am ñaari yére def noona ku ci am ñaari waral waay noona dem nañoo dem a dem ba ku ci am ñaari soxna hittewoo nañ sax dañ lay woo ne la sama ñaari soxnaa yaa yaa ngi nii man tànnu ma de yaay tànn yooyu ma yonent bi seexaleeg tànnal ku la ci neex ma fase ko bu jàppee yar da nga jël ko xam nga loolu fa la mbaax mën a xem wala dina tabawa uddaara wal imaana na leen yàlla tagge yuhibbuna man haajira ilayhim wala yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa xool ko diggante Abdurahman ibnu Awf tabaarakallaahu eh, ak njaati géem ju tedd ja bam ko ne ko wan ma jox bëgg koo jox soxnaam ak tool yaag li ci xaju mu ne ko dul ni ala suuq tegtal ma marché bi rek mu dem di liggéey ba mujj ëpp ci saxaba yonent bi alal ku ñi ci ëpp alal fi la Abdourahman ibnu Awf bokk ba mu bësaan a toog ci place sax bu toogee ba pare day wax ne dem leen ngeen vérifier fi ma tool toogoon mën naa am fàtte naa fa xaalis kon gis nga yonent bi kenn mënu ko kenn dàqu koo yar moo mën a yare ba nit ki lim am soxla mu joxe ko mu mën a yare ba kii tamit lim am soxla ñu ko koy jox mu delloo ko te yàlla tax ñaar yi yombul de am na ñoo xam ne loo leen jox ñu jël loolu ak baadaloo ci la yem waaye ñii li lañ leen jox yëpp dañ koo dañ koo dañ ko dañ koo gedd delloo ko ngir yàlla tax na nag ne yabeel gi ëpp na waa Màkka yab nañ leen ba génnee leen ngeen ñëw madinatul munawara yahud yi yab leen dem leen ngeen xeexi ndax ngeen dindi yabeel dem leen ngeen xeexi ndax ngeen dàq tooñaange dem leen ngeen xeexi ndax ngeen gën a yëkkati tabaarakallaahu kalimatu laa ilaha illallah koon nag faratal naa ko ci ñoom kon nag moom lay wax fi nii gannaaw bam ne usina lazina bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir kon yàlla nee na digal naa ngeen xeexi da ki ñi nga xam ne dañ leen a tooñ ala kulli haal tamit tooñaa yi nga mbitti ne waaye man yàlla dinaa leen dimbale moom lay wax si bi moo tax mu ne kutiba farataaleef na alaykum ci yéen alqitaalu xeex huwa moom xeex nag kurhun lu sibu la lakum ñaal leen lu sibuhu la ci seen bakkan waaye waxasa an sakara woo amaan na ngeen sib say an dara fekk waxoo moom xayrun moo gën lakum ñaal leen waxasa an tuhibu amaan na ngeen bëgg say an dara fekk waxoo moom sarun moo gën a bon lakum ñaal leen والله يلا يعلم مو خم لجن سين وانتم يين لا تعلمون خم لين دار لجن كون لين يالا ديغل سيم لين نين ديفيكو كون نك في لا يالا فراتالي خير كي دورا ديم نك كوماسي دي خيخي boo demee xare yonantu bi yëpp boo ko calculé ñaar fukki xare la ak juróom-ñaar ñii ne ñaar fukk ak juróom-ñeent maam alaaji Malik mi ngi koy tënk ci xilaaf ci naan man wika maxaasihi yëhdi tënk na ko ci baatab yëhdi tënk na ko ci beneen baat bu ñu tuddee këbidu boo jëlee yëhdi parce que ñaar fukk la ak juróom-ñeent ci benn riwaaya bi ñaari yaay benn bu ne fukk la xal kubéer cinq la del quatre la muy vingt neuf am am na ñu ne kabidu la boo jëlee kabidu vingt six la lay jox ndax boo jëlee kaaf vingt la nga jël baa gi deux la nga jël ka maanaam del gi quatre la muy vingt six am na ñu dem tamit ba ne vingt sept la kon nañ la ko bëree ci téere yi waaye loolu lépp boo demee suñ mag ñi bind nañ ko càmbar ko def ko ci téere yi kon nag yooyu yëpp waaye xale yëpp delloo tooñaange rek moom lañ def ñi dal ci kawam tamit tabaarakallaa mu protéger boppam waaye jug dem tooñi kenn mostaxam ci xare bi kon yonentu baangoo a xare yi su ko defee nag euh, lim mottalee aaya ji nag gannaaw bi mu ko fara taalee nag gaa yi dem nag xeex muy euh, xare bi njëkk am ñu sànni fett ba nit mu xew ci weeru rajab te weer wu ñu xormaal la nag ñoom daloon xat ñu ñëw na euh, kenn waxatut ak ñoom xat giñ nekk ak jafe-jafe ga ñu ñëw di ko laaj yonentu na nag yonentu bi nag yàlla tontul ko ne leen xeex daal ci weer woowu yàlla xaraamal na ko waaye li gaa yi def na moo gën a garaaw fuuf gaa yi def nañ ñeent mooy dëdduloo nañ jullit ñi yoonu yàlla bi ku ne gëm naa yàlla ñu ne da nga murtat ñaareel bi weddi nañ yàlla ñetteel bi génnee nañ jullit ñi jàkkaay yàlla ji muy masjidul xaraam euh, loolu loolu lépp ñu bokk ñeenteel bi bokk nañ ci ni nekk kéef yéeféer wedd yàlla ñoom ci seen bopp waaye ñeent yi moo gën a garaaw xeex ci weeru rajab nag moo tax kon lii la leen yàlla delloo ba ba lii xewee ci ñoom tabaarakallaahu nga xam ne ñu ngi ko indil def ko loolu gannaaw si gi nag ci la saxaaba yi féex lool amatuñ benn jafe-jafe ba laay ji wàccee sax Abdullah ibnu ibnu Jaxsin dafa kontaan sadd ay way ne taxudduuna qatlan fil xaraami azimatan wa axzamu minha law yara rusda rasidu suduudukum amma yaqulu muhammadun wa kufrun bihi wallahu ra'in wa shahidu lii la mujj way ah, boo demee ci mawaahibul jalil dana ko andi dana mat juróom-ñetti abyaat keroog bañ leen tiggee ci la way way yi kontaan ci ne leen yii doon jàpp ne xeex gi ñu xeex ak di leen rey ci weeru yàlla xormaal lu rëy la waaye xanaa xamoonoo ñii weddi gi ñu weddi yàlla weddi yonantu bi génnee njaboot ak yonantu bi ca jàkkaam ja ku bëgg a gëm yàlla ñu dox sa diggante di la mbugal lu loolu ñu def moo gën a garaaw ñun luñ def bu ngeen di leen ci ñoo ñett a bàyyi ñu lii la wax nag mu tofal ci aaya ji moo mu ne yasalunaka weer wi xaraami bari buñ xormaal xitaalin xeex laa wax fii ca weer wa xul wax leen ne xitaalun xeex fii ca weer wa kabiirun lu màgg la waaye wa sëddun dëddu dëggloo jullit ñi an sabillahi walis diine yàlla ji wa kufrun ak weddi bihi ci yàlla wal masjidi ak génnee jullit ñi jàkkaa yàlla jële xaraam ba di bu ñu xormaal wa ixraaju ahlihi ak génnee ña ñam ña minu ca jàkka ja akbaru moo gën a màgg fuuf indalaay fa yàlla wal fitnatu kéeféer gi ñi nekk tamit akbaru moo gën a màgg minal xatli ci ray gi lu tax mu gën a màgg kéeféer ku ci dee biel ci safara kéeféer ku ci nekk ba dee ci génn nga ci milatul islam rey nit nag taxul nga biir safara rey nit taxul nga génn ci yoonul islam kon nag wala yesaluun duñ dañ ñoom yuqaatilunakum di xeex ak yéen xatta yaruddukum ba ñu wëlbati leen an diinakum walis seen diina ji ini sataaxoo su fekkee mën ko waaye wa man yartadi képp koo xam ne murtad na an diinihi walis diineem ji fa yamut mu dee murtad ga fekk wa huwa moom kaafirun aji wedde yàlla fa ulaayka yooye gaay habitat si na amaaluhum seen jëf ya fi dunya ci àdduna bi wal axirati ak alaxira wa ulaayka yooya gaay melokaanoo melokaan yi te mooy dee ci kéeféer gannaaw bañ murtatee asxaabu naari ñooy mbooloom safara hum ñoom xaaliduna way béel lañ fiihaa ca safara sahaba yi foo ne tamit gaa yooya seen xeex ba jëlee wuñ ca payoor yàlla buuñaa leen ne ina lisin daal ñi nga xam ne amonoo gëm nañ yàlla wala lisin ñi nga xam ne haajiroo gàddaay nañ wa jaahadoo ñu jihaad fii sabilillah ci yëkkati diina yàlla ji ulaayka yooye gaay yarjuuna danañu yaakaar rahmatullahi payoor ak yàlla wallahu yàlla gafuurun jéggalaa kon la la leen def ci seen bàkkaar yooyu ñu kon ci weeru rajab rahimun yërëmaa kon la bàyyi na leen bañ tuub mu door leen a jéggal door a faat seen bakkan ngi dem aljana kon ayaat yooyu loolu lay tekki mu des nag ci murtad képp koo xam ne murtad nga denn ci diina ji imaamu Malik ne na nañ la tuubloo diiram ñetti fan boo tuubee dugg ci diina ji baax na boo tuubut dañ lay rey sa alal jooja nga amoon sa doom yi duñ ko donn sa soxna yi du duñ ko donn dañ koy yóbbu bayti maal muy banque jullit ñi keroog ba nga te sa sëy ba tas na sa soxna yi tas na keroog ba nga murtatee aj màkka yaag xoor weeru koor yaag julli yaag yëpp yàqu na saafi yu moo gën a le moom dafa ne sa jëf ya balaa yàqu day fekk nga dee ca waaye boo deewut nga del siwaat sa jëf ya nga njëkkoon na jëf dara yàquwut ca Maalik ne sa jëf ya yàqu na sëy nga takkoon yàqu na tas soxna sax boo duggaatoon léegi sax dañ koy takkaat takk gu bees mais kenn la ko delloo saafi yu mun dañ la koy delloo bu defee tamit Malik nee boo jàppoon jàpp lu tooy xepp murtat ñi waar la nga del siwaat léegi sax sa njàpp la la fekkoon nga julli tàkkusaan te bee compté tut ndax dañuy jàpp yaa ngi door a tuub léegi kon murtat lu doy waar la moom la alquran wax Malik tamit firiñ fàncee ko noonu déggee ko ko euh, ci diggante li passé ak li teew li ci tegu nag yàlla ngi wax ci mbiram sàngara sàngara xam naa nag bëgg naa ñëpp déglu sàngara ndax bu ñu fi bàyyeekoo su fekkee moo ci tegu wa moo ci tegu euh, moo ci tegu yasalunaka anil xamri moo ci tegu ñu ñëpp déglu ko ndax daal ña ca newutoon sori ko ña ca newoon tamit góorgóorlu ba bàyyi lu ñuy tuddee sàngara ndax moom la yàlla tuddee moom lay tudd fii ci aaya ji moom la yonantu bi tuddee tamit umul xabaa'is mu ne mbooleem mooy yàlla yi ñi mooy yàlla bi ci gën a bon yëpp nekk ndey mooy tey fii mooy mooy sàngara kon sàngara lu jar a bàyyi xel te léegi nag réewam julit moo dem sàngara sa dafa bëree bëree bëri ba mel ni dañ koo daganal tey dem na ba ci suñu réew yi ñu ngay jaay sàngara ci ay sachet xale yi dem école tabaarakallaahu suñuy doom yi suñuy rakk yi di ko jënd di ko naan te xam nga ne loolu lu doy waar la sàngara nag ci njëlbeenu lislaam naan ko noon na dara newut ci woon li ko waral mooy ne ndax bi yàlla di yónni yonantu yi booba nit ñi niñ bëggee sangara sàngara bu yàlla ñëwoon ne sàngara dafa xaraam baleen ko diine ji du bëri ay client wala buy bëri client tamit arabe yi ñoom duñ ca bokk ndax ni Sénégal xiree ci ceebu jën nu ko raw noonu la arabe yi xiree woon maanaam ci sàngara te xam na bu yàlla yónni woon ab yonantu mu ne ceebu jën xaraam na bu ko kenn lekkati du bëri client de booba nag sàngara moo raw ceebu jën ci ci arab yi moo tax mu ne leen booba nag dara nekku ci mu ne naan na ngeen a naan indi përëm leen aaya joo xamee sax dafa ñëw ci imtinaan di ñaaxe te yàlla du ñaaxe ci lu xaraam ne wa min na naxiili wal a'naabi tattaxisuuna minhu sakaran wa risqan xasanan gaa yay naan boobu mooy première aaya ji wax ci sàngara di ko tàgg ñuy naan booba dara nekku ci ñu dem ba ci kanam ñaareelu laaya ji moo nekk moom la ñuy firi yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fihima ismun kabir wa manafiu linnaas bàkkaar bu rëy mi ngi ci naan sàngara mais nag am na njëriñ njëriñ nga duut boo naanee njëriñ nga mi ngi nekk cag la cay judd ci commerce ndax fu ñu koy bayee foog ñu dem luye ji tool jàpp ay surga ak ña koy bay buñ paree ña koy defar jaral bi ko jaay koog ña koy jënd muy tasaaroo loola mooy njëriñ la waaye duut jëmi naan bi sàngara mënul ci njëriñ su ko defee tamit gaa yi ne ah wa ma la wax di njëriñ du tuuti dañuy dem naani genn wàll ga ñëpp dem di naan ñeen nga moom ne wa ismuhuma akbaru min nafihima ñi bàyyi continuer di naan ñeen nañay naan ñeen naña bàyyi abdourahman ibnu aw tukki ñëw ray gàtt jëlem jël bopp ba wàjjil leen ko xoote gaa ya naan julli julleeg timis jël kenn jiital ko ci seen biir mu jàng qul yal kaafiruuna mandi bàyyi laaya qul yal kaafiruuna boo koy jàng laaya awra bu rëy rëy la yàlla ne kon nag ñetteelu aaya ji ñëw na bu leen naan ti sàngara fekk yéen a ngi waxtu julli wi teew na yaa ayyuha allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukaara hatta taalamu ma taquluun ah ñi dafa ci noona ku ñu waxut baan ñëwati tukki ñëw rayeti gàtt gaa ya dajee naan sàngara waa lansaar yi di taggante diggante aw soo xas raj defante ay xasida kenn ku nekk di xas sa morom ba ñu mujj xaañante fa te xoolal ni ñu àndee woon ti ñu yàlla tàppee seen xol yi ba wax ko ci alquran Omar ibnu Xataab taxawati ne yàlla nga ñu leer la ci sàngara leer goo xam ne dootuñ dootu dootuñ daagati dara ci sàngara allahumma bayin lana fil xamri bayanan saafiyan ci laaya ja wàcc nag ne innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijjisun xanaa war naa tax ñu ba ko sobe la doy na mu ne déeréet min amali seytaane ba mu demee ba ca aaya jay jeex mu ne na ngeen ko teet yàllaam la mu mu ne bàyyi leen dem ba laaya jay jeex mu ne fahal antum muntahuuna tekki wu ne ndax ba ngeen de fahal antum muntahuuna mooy baleen ko yii nag mooy aaya bi mujj a wàcc di xaraamal sàngara sàngara nag ba ko yàlla xaraamala gudoon am na ci ñenn ñu xam xel ñu ko bàyyi woon ngir gis ni muy doxa dalee seen xel yi ñooñu bokkoon na ci Abdullah ibnu Judaan ku ne ku jàng histoire ci siira xam nga ko sang bu mag la woon ci waa Quraysh yi moom dafa naan ba mandi benn xaritam bu ñuy tuddee Umayyatu ibnu Abi Salt mu dóor ko ci bët ba yàq bët ba te yëgut ko xool ko ne ko waaw sa bët bi lu ko def nii nanguwul ko koo wax ko ciy sonal ku def lii mu ne ko yaama ci gaañ kañ la mu ne ko bi nga mandee mu yëkkati fukki fukki fukki fukki junney dërëm ndaamtee ko ko ne ko bàyyi naa sàngara bis ni ki tey booba sax yàlla waxagul dara ci xaraam ak sàngara waaw gis nga ko keneen ki mooy xaysul noasim moom ñaari yëf la def boo benn aaya buy xaraamal amagul mu ne man xaraamal naa ko sama bopp dafa naan ba mandi xool biddiw yi xool weer wi ne day dem ajji ko di daanu di tëb di sippu jalañ di tëb di sëpp jalañ ba jëbi xaali mu mandi mu yeewu pare ne waaw ñu ne ko lii nag mu ne lii nag lu ma def lii ñu ne ko biddi nga waxoon ne moom ngay aj ñaareel bi dafa mandi xaar ba guddi mu sol tubayam di sàkk doomam bu jigéen waaye yëgut ko bër set rek ñu toog ah soxna si doom ji ne ko ah papa li nga bëggoon démb su ma la ki toppoon musiba xam de mu ne ko lan la mu ne ko nga ñëw di ma sàkk mu ne ko man mu ne ko wallaay démb ci guddi yaag may sàkk mu ne ko bàyyi naa sàngara mu jot nag ku man di bay sàkk sàkk sa doom kay war nga koo ba ki ci tegu mooy abbas abbas ibnu mardas mom moo doon sangu aw litam ku ñor la dafa xëy rek bàyyi sàngara ñu ne ko lu tax mu ne mënumaa xëy di sangu sama nit ñi ngoon jot man naan sàngara di seen dof wax bi ñor la wax mu ne xëy di sang dëkk bi ngoon may doxab dëkk bi du ma ko def kon sàngara mën na laa xëy ngay xëy di sang ngoon jot ngay dof mu ne banaa ko su ko defee nag yàlla nag ba mu leen koy baaloog da leen a wan loraange yi ci nekk par benn ba ñu ngee jow mu bàyyi ko bi ci njëkk la muy njëkk a yàq mooy sa xel mi boo xasee nekk naan katab sàngar rek sa xel dem na musuma gis famille buy réunion di laaj xalaat ñu ne dem leen woy naan katab sàngar mu wax lu ciy xalaatam kenn mosu koo dégg kooku moom amul xel koo amul xel kenn du ko laaj dara ñaareel bi xoolal li muy yàq alal rawatina bi naan yombee léegi ñii ñu koy pikiiroo ñii nga koy fóon ñii nga koy lok yooyu yëpp lépp luy mànd rek sàngara la yonent bi nee na kullu xamrin maanaam xaraamun kullu muskirin xamrun wa kullu xamrin xaraamun sariya yoonal ne ku kon naan caw leen ko juróom ñetti fukki yàq mandi nag mandi wut yëpp moo ci xam xoolal li mu yàq ci société bi soo xasee mandi da nga saaga ku la ëpp doole xoolal li mu yàq ci diine dana tere doo julli doo tudd yàlla innama yuridu shaytaanu an yuqia baynakum al adawata wal bagda fi l xamri wal maysir wa yasuddukum an zikrillah wa an salaati kon nak yoy yep limu yak la kenn xamut nim tollu mom sangara ci limu ko yak ci xel limu ko yak ci sa walu santé gis nga kat bo gis bëtam ya day ko da nga bari day gondalé ak tuñu ya fekk timit bir bi da fay melni benn mbuus bu ñu def bagage lol mom yéen nak seetlu ngeen ko yaram nga timit day ko yaram bi dootul so da fay soppé ko melni kuñu kuñu kuñu kuñu ñu waaye day dem ba dootul amati caf ngaag lekk naan katab sàngara boo gis bool tegee bool bi mooy njëkk bi amatul caf la ci lekk su ma ko doon topp rek moom sàngara li muy yàq ci alam li muy yàq ci wàllu santé li muy yàq ci wàllu société bi gàcce gi ngay teg sa sa sa njaboot bi yow mii naan sa du fuñ xageti fen du tuñ kenn du len konteeti lo rek warna tax ñepp bayyi su ko defé nak kon ayé joju mom lay wax ci ni xamna né ni ngi may xamal né sa waxtu yu jotna xamna suñu fi del si waatee rek tek da ngay teggu ci bokk ayé ji gën ko farañ fanché ndax li sangara yaq te mu bëri ci di jamono dem ba men dafa dagan euh farata la wax ko ndax dal ñepp man ko bayyi ak wax li nekk ci jaay sangara ak li ci aju nga nekk nga xamné li sangara jël la nga tek ko ci di yobu nit ñi di ko transporté la ci la ci lislaam wax lépp war nañ koo xamal nit ñi kon nag li ngeen jox ñu jox